Bienvenue sur Salam Vision. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki àdduna mbokki internet bi mbokki chaîne YouTube bi yëpp tabarakallah kenn ku ne ñoo ngi lay nuyu sa tool sant di la ziare di la baal wax di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala yéen yàlla boole jéggal ñu am mbégte nag toog suñu pap suñu waajur suñu xarit suñu lépp di imam Maguette Dramé waaye tamit di chef de quartier Mousdalifa di ko ñaan yàlla yal na yàlla gën a guddal fanam ñu ne fii de ci moom nag ci weeru koor gi weeru tedd yi weeru sell yi fa seen am ay point yu ñu ko laaj rek ci biir Mousdalifa fa tabaraka allahu ñu xool ni nga xam ne fa la Mousdalifa jógee ak fu mu toll ak fi nga xam ne yéen bi nga xam ne moom la am ci Mousdalifa ëllëg boo ko dugg biir Mousdalifa xam ne mos a fa démb ak mos a fa barki démb wala kon papa bisimilah ñu leen di. Ah, oustaz jërëjëf jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziare di leen maanaam di ñaan yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala yal na yàlla na yàlla nangu suñu jaamu ci barke weeru tedd wi jéggal suñu bakkaar dafa jàmm ci réew mi dafa kilifay diine yi kilifay aada yi yëpp ci jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tabarakallahu ngeen ko déggandoo wax naa ko léegi bi ma koy mooy imam Maguette Dramé di imam en di chef de quartier tabarakallah di ko ñaanal rek yal na yàlla gën a guddal fanam yal na yàlla imam ñu bëgg a xam na sa quartier bi neex naa nekk neex na kii wala neexul kii waaw quartier bi day neex na téye neexul téye neex na te dina la am am na fi doomi aadama yoo xam ne fa tabarakallahu ah ñu xam seen wareef lañ xam nañ seen warugar xam nañ li ñu wax xam nañ fi ñu taxaw xam nañ nit ñi ñu bëgg par am na fi ñoo xam nañu ñi fa tabarakallahu aussi dañoo xaw a yéemu eh, daanaka am na fi nit ñoo xam ne moom lépp loo xam ne li avancé la. ñoom taxaw ci lu ko yàq rek lañ nekk waaw moom euh, duma koy wax te duma am dara lu ma ci xalaat hmm. parce que fii képp ko fi yeewoo ñu fi yeewoo ñëpp laa xam ñëpp laa xam parce que man duma chef de quartier boo xam ne damaa ñëw dëkk si bër ci dem hmm. am naa ci quartier beneen juróom fukki at ak juróom ñaar cinq mille neuf cent cinquante deux euh, euh, soixante deux laa fi ñëw mm. waaw kon maa fi bëgg a yàgg booba ndaw la mm. soixante deux ba léegi génn ma fii sama yaay laa fi fekk si woon mu yàlla def mu antu ma def fekk sama njaboot mm. ah quartier bi nag wax dëgg yàlla def naa fi lu ne li may wax waa Mousdalifa ba xam nañ parce que mag ñu baax ñu ma fekkoon nit ñu baax ñu ko mel ni ñoom Ngoti Sarr ñoom góor gi Dut ñoom Samba Diouf góor gi Basiru Ndiaye góor gi Ñenguti Dia ah góor gi Mbay Seen góor gi Amadou Yelo Thiam eh, góor gi eh, Seydou Ba góor gi Abou Kébé mi ñu ñoo nekkoon magi koñ bi ak Alaaji Jibi bi nekkoon ci jàkka ji daan fi def lu baax di dox lu baax daanu soññ nag ñu nekkoon ay xale yu dox boobu ni kii laa toll ñu di ñu soññ rek di ñu teg ci yoon nag ah ba yàlla def ñooñu ñëpp fa tabaarakallaahu eh, yàlla moom na leen ñu di leen ñaanal fa ñu tëdd yàlla leen yàlla defal njéggal ak ñoo ñooñu mooy kaamil bi la moo waxoon bari ci démb mm. ne la nañ jàngal kaamil mm. ñi génn àdduna ñëpp ci mm. quartier bi mooy mag ñooñu ak ñeneen ak ñeneen mënuñu cité ñëpp maam ñu laaj la ba xam ndax sa koñ bi ak quartier xam nañu rôle chef de quartier ndax xam nañu chef de quartier lan mooy rôle am. non non je dis loolu moom je dis carrément xamuñu ko ils savent pas qu'est-ce que c'est un quartier chef de quartier ils savent pas le rôle de quartier. Hmm. et y a certains même joxuñu chef de quartier gëdd. Hmm. et dañoo xamu ni chef de quartier c'est la première police. Hmm. les chefs de quartier sont nommés par décret présidentiel. contrairement à ce que les gens ne savent mm-hmm. li fal président la République. Mm-hmm. fal la maire de la commune. Mm-hmm. moo ñu fal. ay nit ñoo ñu sous la euh, protection. du décret du président de la République. tous les délégués des quartiers du Sénégal. décret présidentiel la moo tax bu la maire defalee attestation. attestation bi. day montré ne que oustaz Diarra mm. waa quartier am jël nañ ko comme chef de quartier mm. waaye décision mm. maire de ville moo koy jël te décision boo ci xoolee ay décret décret décret décret décret lañ ci répété ba ci suuf mais li ma nga xam mooy ak kii la faute faute bi ci kan la ci chef de quartier yi wala ci population bi ni ñu ñàkkee xamul lu chef de quartier faute bi ci kan la ci population yi parce que chef quartier moom dañ koy mu ñëw di di di toog na di def liggéey liggéey mooy parce que man jusqu'à présent sax damay wax toujours ne statut de quartier war nañ ko def sur papier ñi ñu gis ko euh, parce que nit ñi dañu ñëw tuur bi nga ñëw dox ñu ne fi mbedd buur la ay tiw seen douche. muy xellee ko ñu mbedd bi. boo waxee ñu teg la ko bari wax. ñëw di def ay occupation anarchique. te ñu jaar ci yow sax. tous les ateliers que vous voyez dans le quartier. amul ci benn borom atelier boo xam ne ñëw ne fii ci man tàgguma. ne damaa bëgg a installer atelier. mais lan moo tax nga bàyyi ko ci nag. dama leen ci bàyyi parce que euh, wax naa waa mairie. mais am na fa ñoo xam ne ñoom ñooy toppatoo loolu. wax naa leen boo leen waxee ñu ne waaw danañ fa dem. boo ñu fa demee dellu si. duñ la wax luñ wax ak ñoom. nit ka nekk fa. da ngay ñëw fekk ku yokk këram. yokk këram. nga wax mu ne dañoo am kayitu meer. teg ay foos. ci kaw bi. ñu ne dañoo am kayitu meer. kon dafa mel ni su ma déggee maire moom mooy dammal loxo chef de quartier. moom moom la ñoom la ñoo war a loolu. ñoom ñoo waral léeg-léeg ñoom dañu war tous les jours faire un tour dans les quartiers. mais ñoom boo duggee si koñ sax damaa yaakaar ne si ñu war a mën a jaar sax. pour dugg. si yow la war a njëkk a ñëw wa hmm, atul buyuuta min hmm, abwaabihaa hmm. bu ngeen di dugg kër. bu leen bu leen tëb miir. bu leen teppi per. jaar leen ci buntu kër gi. bu ngeen àggee nii leen ñu ngeen fekk ci kër gi. wa tusallimu ala ahlihaa wa tusallimu ala ahlihaa kon fa tabaaraka allahu. ça fait à peu près deux semaines. j'ai été reçu par le mm. ñu toog di waxtaan maa ngi moom. Mm. ma ne ko dama lay ñaan. Mm. les agents de la mairie bu ñuy ñëw ci quartier. nañu jaar ci délégué de quartier yi. parce que dañuy ñëw yor seen i kay. di bind wala ñu dugg fii di def lii di def la population yi ñoom bu ñu jaaxle ci yow la ñu ñëw. di la laaj tey doo xam loolu man réponse nga leen di si les loolu c'est obligatoire du ñaan sax. waaw ñoom waruñu dugg ci biir kër gi waruñu dugg ci quartier bi te jaaruñ si yow. ah am na ñu koy def de dañ naan ci bari sañ-sañ nag am na ci ñoo xam ne dañoo bari sañ-sañ parce que boo seetee. Hmm. ñii fi installé wu ñett. Hmm. duñu ko nangoo wax. Hmm. mais les les les certains certains nu ñu ko tuddee agent. agent. Hmm. non xam nga nañ leen tuddee sama xel dafa jaxasoo ñoo leen di jox aval. ñoo leen di jox aval am ñu nekk municipal. waaw. état civil municipal wala. waaye sama xel yi moom tamit sama gàttal kii rek xel dana dellu hmm. ñoom Assane Sall lu ñu doon. ñoom ay kii agent municipal la. non am nañu leen tuddee. conseil. les conseils. Hmm. justement. il y a des conseillers dans le quartier. Hmm. mais lu ci bëri. Hmm. nit ñi man xam na ne man je suis un homme intransigeant. Hmm. je suis un ancien militaire. am na yoo xam ne du ko nangu. mais dañ may tedd. dem waxtaan ak ñoom réglé li ñu réglé pare. bu ñëwee fii di la jéem a sàng mbàjji. te man kenn mënu ma sànni. ñu wax ñaan booy Dakar booy Dakar. man Dakar mbëllëxe laa juddoo. Jolof. mais fii la fee. Dakar. 1946. Mm. ba léegi maa ngi Dakar. kon kenn mën maa wax wala nga def dara loo xam ne mën na ma jël ñooñu nag. Mm. ñooy def souvent des arrangements. Mm. ak nit ñi. mooy dafa seen pouvoir mooy lan bu maire dafay lu muy def ngeen jël li maire envoyé ko kalaame. donc xam nga li war am mooy maire kilifa la section yi mu yor ci ci ci maire bu ci nekk am na ku mu ko dénk. ñii xëy di dem di dikk di dellu mais est-ce qu'il rend compte le maire réellement li xew ci quartier yi. mais tamit chef de quartier nag moom moo war moom itam. Mm. de temps en temps. Mm. mu jël otoom. Mm. dugg ci quartier bi. xoolal boppam sans que sax délégué les quartiers yëpp ko. Hmm. gis les réalités. Hmm. du quartier. waaw loolu li may bëgg a xam mooy loolu euh, jàmbat bi ngay jàmbat mooy feebar bi ne ci ci sa koñ bi ndax chef de quartier yëpp bu ngeen toogee réunion daañu génne seen feebar kenn ku ne waxtu yi man li ma soxla pour pour. li am ci quartier bi moo am ci quartier yëpp. Hmm. man nag man dama yor quartier boo xam ne bii le les soixante six quartiers. Mousdalifa est une particularité. parce que benn. bari na inondation mm. gis nga fii nga gis nii mm. kër yi yëpp dañ leen a toj mm. seeni borom a ñu toog di xaar depuis dix-sept ans ñii ñu ngi liyee am nañu gaañu waaye mm-hmm. donc moo tax euh, quartier bi mel nii mu mel waaye quartier bi ci quartier yi gënoon a xumb ci Ndakaaru la bokkoon waaw ah léegi nag ñi ñi ñu ngi commencé defaraat suñu di kër di quartier bari ay étage waaw waaw léegi ñu bëgg am léegi yow ba am ndox euh, quartier bi solal na la ci ay plainte yoo defe naa chef quartier yëpp maa ci ëpp lu may jot ci convocation chef quartier yëpp man maa ji ëpp lu may jot convocation waaw wallaay chaque jour dama jot convocation dañ lay convocation nga woo borom jox ko bis ba jot kooku du wuy mu dem ñu joxaat ko beneen mu andi bis ba jot kooku dem du wuy si man nag foofu euh, waa police ñu baal ma samay camarades de service lañu parce que nous sommes tous des hommes de tenue mais foofu je me dis qu'il y a un manquement quelque part de la part de la police. Mmh. Parce qu'un individu, quand on le convoque deux fois à la police, mmh. s'il ne répond pas, la police qui doit aller le chercher. Mmh. président de la République, mm. si on convoque deux fois de monde, on va le dire. Mais c'est le mot am na ñoo xam ne dañ leen di convoqué juróomi yoon ba bëri ci démb ci benn faamu njaago te maa mujj ma maa jël convocation bi dem ba seen kër ma wax ak borom yaayu jëkkëram ma ne ko neel neel élève eh, eh. sonn naa ci convocation bi xale bi fii la juddu ci biir kër gi ngeen ni dafa am néeg fële ci gannaaw mais ana ana ana ana ay du ngeen ay mbokkam du ngeen ko ni eh, am na convocation buñ ko woo police ne leen ko ñeen nañoo wuy si ma jël si ko sama kër na maire bi teel convocation bi nii mhm. delloo ko élève na dellu police ne leen man ndaw si gisuma ko te duma dem di wër quartier yi di laaj fu mu dëkk mhm. waaw bu dëkkoon ci biir quartier bi mhm. du problème mais ma nga dëkk ceeb beneen quartier. wàllu tabarakallahu ñu ngi ko gisandoo yéen fii am na ko suñu imam suñu chef quartier suñu pap suñu xarit suñu lépp di ko ñaanal yàlla yàlla gën a gudd fan. di ko ñaanal yàlla gën ah weeru koor bi fa tabarakallahu julli jaar ci ñu góorgóorlu nañ nag waaye nag weeru koor la boo xam ne nii métti na li ko métti mooy liggéey amul ñi ngi liggéeyam xaalis amul donc boo duggee ci karité bu ndogu jotee nañ daan ndogoo ndogootuñ ko parce que moyen yi amul ah yàlla nag moo yor doomu am wa maa min daabatin fil ardi illa allah yàlla mustafara mustawdaa mm. kulun fi kitaab bi mm. yàlla nag mooy mbir doomu aadama mm. tal soo ko ñi ñi ngi lekk waaye nag daan na fi gën a neex daan na fi gën a neex ah ñii sant itam nag les médias ak ustaas yi médias yaa ngi ubbi ustaas yaa ngi waral télé yëpp seen ustaas yaa ngi wax rajo yëpp sëñ oustaz yaa ngi wax. ah ci kaw loolu nag di sant yàlla. di leen ñaanal. dana yàlla yokk seen fan bu gudd. dana yàlla yokk seen xam-xam. xam naa dañ ko jëlaat léegi léegi ci kanam. ndax am na benn ndogu bi benn ONG war a séddale. te moom bi mooy imam bi mooy chef de quartier bi. bu ñu ci jotaay boobu am na ay yu ci a xew. bu ci xewee dañ ko ci posé ay question te bu ñu ko ci posé dañu tontu incha allah rabbi ñu ànd ak seen sen seen seen seen émission bi di. ba tabaarakallaahu jotaay mag yi ànd ko imam Dramé waaye mu feñ ko daawam xaritam Oustaz Ibrahima Diarra fii ci Mousdalif ànd ko Salam Vision kon Ousmane ñu ànd ak moom rek ba ci kanam. waaw islam rek dama leen di ñaanal. ku leen di topp la. Mm-hmm. seen émission am solo la. Mm-hmm. ñoom ñoom boo ko xoolee ñoom. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. daal fa tabarakallah ah, kon kon imaam ñoo ngi lay jëlaat léegi léegi mën a woo ñu nga tàggatoo mais si kanam bi nga tàggatoo incha allah dugg ci koñ bi am nañu xool am nañu jël bismillah